nag am yéene ci jigéenu dëkk bi looloo waral lii muy def yëpp mu koy def loole itam ku xam sëñ ku ko xam laa wax ku ko xamul nag xamoo ko nekkoon na koo xam ni daawul jëfal boppam dara ñëpp xam na ni lu mu am ak lu mu man def na ko ci nit ñi te li mu def liñ ci xamul moo ëpp doole foofu li ñu xam ba tax na moom mii kat di sëñ Modou Guèye loo mi na ko Guèye Guèye Bamba bokk na ci cër yooyu nga xam ni way juróom daanu ko doxal mu fas yéene te di ko doxal waaye ànd ci nag ak ay magam ak i rakkam ak njaboot gépp ndax boo dee xool njabooti sëñ Mor gépp ñu ngi fi ñu fi ne ñu fi teewul bariwul loolu itam ku xam moom cosaanam sunu maam xadisatu jëy fii la yoroon ay mbànd di cuub ñu ci bari ci fii ci dëkk bi moo leen jàngal cuub ci liggéey bu njëkk ba moom loolu xëy na fekk na ko wala lu mu ci wala mi ngi koy dégg waaye fii yaakaar naa ni bu ñu sunu woy jur alxaaji Mbakke bu sa ñang seeree rek lii may wax dina xam ni moom mii am na lu bari loo xam ne fekke na ko ci laata ñu ñuy ñu ñu ñu ñu ñuy feeñ àdduna quartier bi yëpp itam loolu xam nañ ko ci kër gi këru liggéey la woon këru jëf li ci topp mooy ay maamam fee ci looyeen tolloon na jamono joo xam ni ku fi lekk cere ci dëkk bi looyee na la koy jox waxuma Madina de waaye dëkk bi yëpp laa la wax Cees yëpp bu looyeen defarul cere dëkk bi du dund sunu maam Kumba Seck sunu maam Ngoone Géy euh, euh, sunu maam Kumba Seck wayjur sunu wayjur wi suñu Cheikh sunu maam Jee Mbay ak ak yaakaar naa ni tolloon na jamono yoo xam ne liggéeyu jigéen ba muy cere looyeen la ko mas xame kon bu demee ba samp loo xam ni jigéen ñi dinañ ca suturloo day mel ne li bàyyi laat waxoon rek ni ëpp sët dina ndoxum siti waaye du xam ban maamam la daloon du xam fu mu ko jëlee waaye lii moom du du doon gan ci ñun ñun xanaa ñi xamul kër gi ni muy doxee moom lu yéemu ndax nan la mën a jëlee ay pexeem nan la mën a jëlee ay doomam ay ay dooleem di ko defal ñoo xam ne xëy na dara dootu ci jóge dugg ci poosam waaye ku xam fi mu bàyyeekoo ko loolu du dara ci bopp fan yee maa nga leen koy wax ci e, yàggul dara man leen e, fexe leen ba yeen ngeen di doon ay ambassadeur sëriñ moo ndax leneen lu leen def rek du leen du leen jig du leen jig ma wax leen ni leen li ngeen di bëgg nag toujours na yàlla nay jàmm li ngeen di bëgg yéen suñuy rek yàlla nay jàmm lu tax yàlla nay jàmm mooy di ngeen bëgg loo xam ne dinañ leen sa fekk mu neex ñoo ak naq ñu yéen fexe leen ba lu leen di jëf lu leen di bëgg na na na doon ak njub na doon luy jëriñ nit ñi ndax kat yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ni xayru naasi anfa'uhum li naas ki gën ci nit ñi moo ko gën a jariñ nit ñi kon ndekete du caagee ni dangay bokk ci parti pour mën a liggéey dangay bokk ci état pour mën a liggéey dangay bokk ci benn kuréel pour mën a liggéey waaye kuréel ah, ay liggéey pas-pas la boo xam ni imma danga koy donn wala ñu yar la fuñ ko fuñ koy jëfee ba mu mag kon ñi fi teew ñëpp nañ na xamante njabootu sëriñ bi ni njabootu sëñ Mawlo ci kàddu sëñ Maxtaar nañ ci liggéey ku fi ñëw itam moom nga ñëwal njabootu sëñ moor ngeen ñëwal ñu fi teew ñëpp am nañu méritu teew fi loolu dinaa ko leer sànq bi may ñëw dama ko fekk mu jël kàddu moo tax euh, mënuma woon a jàll nuyu sëriñ si yëpp ak wëllëre yi di nuyu sunu nijaay sunu sëriñ sëriñ Amdi yàlla na yàlla may ko jàmm ak salaam mu yàgg ci xalif euh, sëriñ Mame Mbaye Lo di nuyu mbokki taalibe yi jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi di sama xarit yi nga xam ni ñi ngi fi maak ñoom ñoo jàngandoo di it ñi nga xam ne ñoom laa àndal ñu bokk langue politique yi nga xam ñu ngi ciy liggéey jëmm ji nag ñu fi indi tey genn kàddu rek laa am pour seede ko ci moom moom géey Bamba yi beneen bi ci des mooy kàddu gi nga xam ne ñi ma àndal fii di politique dan ma koo jox léegi kàddu seede gu njëkk gi nag mooy nit di nga dëkk ak moom fii ngeen bokk lépp ngeen fawandoo waaye bala nga kaa xam wala ngeen xamante dëgg ngeen daje feneen ndax di ngeen jël li leen yare ci kër gi ak li leen jare ci koñ bi comme suñu première phase de socialisation ñi ngi ko defee fii ci Medina Fall ba nu génnee bitim réew am na leneen lu fi tax na ma fier ci moom ndax dafa nekk Bordeaux man ma nekk Toulouse bis ñëw président Ablaye Wade décidé daan ni fokk mu samp benn consulat général du Sénégal ca Toulouse te jamono boobu metti na te dama fa nekkoon jiite woon élèves yi yi foofu ca Toulouse jamono bi mu mettee mu am ñaari famille yoo xam ni ab Ablaye waat dafa wax ni bu leen joxee cër loolu ñooñu dinañ mën a def consulat consulat boobu rôle am mooy politique rek ndax gàppoon na ni Toulouse jamono jooju moo ëpp nit. Bordeaux te Bordeaux am na kii ñu ni pour ñu tracé waat carte électorale bi foog ñu yóbbuwaat consulat ba ca Toulouse. yàlla def ñaari famille yooyu fu mu mën di dem dañ naan leen benn nit lan xam ni moo jiite association boobu bu ngeen jaaree ci moom këyit gi ngeen bëgg wala accord bi ngeen bëgg waa Toulouse dinañ ci daal président def loolu. le ministre def projet bi ñoom ñu sori ci lool yàlla def na. bu ñëpp day ñëw ci biir dëkk ba di ma di ma song pour loolu dama leen a wax man awma compétence su donte sama xëy na yéen a xam lu tax ngeen wax loolu mais awma compétence su désigner kenn ku war a nekk consul ndax étudiant la association la durée yéen a xam seen raison nag mais man awma compétence loolu président bu ko bëggee def ko yàlla def na ñaari famille yooyu di xëccoo euh, ndax ñaari famille mag lañ ci Sénégal ndax tudd seen tur fii duy teggin ña ko doon doxit doon ay professeurs yu gëj tey ñu leen déglu senegal fa lañ jàngee ñu ngi fi tudd seeni i tur yi du teggin waaye Guèye Bamba xam yàlla def ku jigéen di ma woo ni ma damaa bëgg a gis ma ne ko ñëwal jamono jooju moom Bamba bi may fekk si moo fekk ci banque bi la ma fekk ma jël ay kii di ko doon ko dimbalee étudiants yi ba ma génnee man xaw ma ne war ko jigéen gi maa ngi ñëw ma génn rek yam ci mu accompagner ko mu xool ma ma xool ko mu ni teg ma ni teg nga xam ni li ma ko waxoon moo am nee naa ko am na ñoo xam ne waxoon naa leen awma compétence yi waaye bu dee ñoom nana dara tànn pour def leen consul fii ci Toulouse bàyyi la ak ñi nga àndal kon consulat bi du yaakaar naa ni consulat amul Toulouse de boobu la ko Ablaye Wade di tëj dossier kon jàmbaar la te ku baax la ñi ngi ñaan nag. ah maa ngi jégalu sëriñ Cheikh Ngounda dafa yegg si li ma bëgg a wax rek moo di ñun ñi nga xam ni Cheikh Gueye moo fi nekk ak Malay Seck ànd ak euh, Njaga ak délégation bi ànd fii ñoom danoo waxoon seen kàddu tey gërëm la gu ñuy def ci Bamba ndax lii Bamba def tey moo di defar barab boo xam ne pour jigéen ñi man fi ñëw di fi liggéey di fi daan doole moom Bamba mi ngi ci yoon yi ndax su fekkente ni danga amoon sa wayjur mu nekkoon délégué de bi di tax dala ci quartier bi yow nga ñëw teg dara ci quartier bi pour njigéey jigéeni quartier bi man cee liggéey kon danoo wax ni Bamba mi ngi ci yoon yi moom mii mi ngi ci yoon yi ndax li ay wayjuram doon def bëggal ko quartier bi moom mu ñëw ne ko kon nan ko ñaanal li naan mbooloo mooy doole lii nga xam ne samp na ko muy benn yaakaar naa ne ñoom Cheikh ak ñoom Mëlay ak man ak ñëpp war na noo boole bu defee benn ñu def ñaareel bi ñu def ko ñetteel bi ñu def ko ba mu am ci lu mat fukk mel ni ci karti bi loole la ñaan yàlla jërë ngeen jëf. ñépp di jiital sama ci sama nuyoo sëñ Cheikh Ngounda Fall di di nuyu sëñ di sëñ Ibra ak euh, waa kër Cheikh Ibra Fall gi nekk fii yëpp ak waa Loyeen ah di nuyu ñi ma àndal euh, commencé par Cheikh gay Cheikh gay mi ngi nga xam ni mooy suñu candidat ak euh, Ndiaga Wade ak mbooleem ñi ñuy àndal ak ma lay ah man sama ñëw fi sax waroon naa fi ñëw gunge waroon naa ñëw gunge Cheikh Gaye mais aussi bu dul woon loolu aussi damaa war a ñëw parce que ci kër gi laa ko parce que kër gi dama fay yàgg a ñëw inspecteur wax na ko léegi dama daan ñëw di disante góor gi mu di ma jox ay xel ay xalaat mu nekkoon sama conseiller privilegie nekkoon sama baay aussi loolu inspecteur wax léegi lu wóor la lu wér la man nag euh, li mooy gën a wax mooy euh, Mouhamadou Lo Gueye Bamba li nga def dafa rafet te dafa original ndax démarche bu original la mënoon nga ñëw bokk ci politique bi féete fii wala féete faay wala féete fi la neex am nga ci droit mais da ngaa ñëw xàll yoon woo xam ni yoon bu original la defal sa gox defal say rakk say mag defal say dëkkandoo loo xam ni dina fi nekk ilaa yow mi diini ñëpp di ko fàttaliku loolu mi ngi mel ni ku gasub teen waaw waa ji yoroon micro bi léegi dafa ni bi muy wax xaw ma nu mu ko waxee waxeeti sax ñu kii ak bënnub teen waa jolof ju teen naan yow danga ngaa bënnub teen waaw da ngaa teen lii nag lu rafet la man dama la ci encouragé xamal ne ne en dehors même de la politique soo mënee ñëw nag moo gën waaye boo ñëw it sama rakk nga ca dara du ci day waaw ca loo ne dinaa ca dem loolu def du ma ko yëgee dinaa dinaa ca taxaw parce que ku baax la day nekk ba bitim réew ñuy jokkoo ca loolu maa ngi koy gis ci politiciens yi kalaasuma léegi ca bitim réew la xamante ci politique kii politique deful dara chaque jour ñu ngi waxante vous voyez mooy démarche originale bi may saluer kon yow lii nga def nii non seulement da nga koo gëm mais da nga koo yëg ca lu lu lu lu wér la lu fés la kon maa ngi lay encourager di la gërëm di la xam ne maa ngi ci sa wet saa su ne ak fu mu mënti doon. bala la ngeen a jox kàddu gu kenn da ngeen koy jox conseil de quartier bi nga xam ni ñoom ñoo dalal gan yi bu ko defee nag ngeen monte jox autorité yi bu ko defee maire en tant que autorité moom mu clôturer leen wante nag alhamdulilah. Euh, Bamba Gueye man moo Modou Diouf deuxième adjoint conseil de quartier ci turu suma mag Ngouda Ndiaye premier adjoint ak sama bak sama rak Badaña secretaire général ñoo ngi lay sant di la gërëm ginnaaw bi sëñ Moustapha tànn nu ñun bi ko sëriñ bi joxee dëkk bi ñu nekk ses principaux collaborateurs ñu jàppale ko ci dëkk bi ñi ngi lay sant gis nga sa wéyjur sëñ Mor Lo mii ñun yàlla daf nu baaxe woon bi ko fi sëriñ bi samp ci dëkk bi ñu bokk ci ñi koy jàppale gën a jàppale ci dëkk bi donc xam nan ko kóllëre googee nag nu liyee woon sa wéyjur wi mooy continuer ba nëgë ni allah du dog ba yomal xiyam ba tax na lii ngay def fii ñu war ko inaugurer ci diir bu gàtt continuation la ci action yi nga xam ni sa wéyjur def na ko fa ñun ñi nga xam ni yàlla daa def 1951 bi sëñ Mortala Fall sancee dëkk bi tolloog ñu gane si gane àddina boobaag léegi bi ñu xàmmee ba nëgëni si amul benn réalisation différent wu délégué de quartier yi différent autorités yi ba nëgëni si dara luñ fi raw gis nga bu Médina Fall disposé d'une école primaire d'un CM devenu lycée de la case des tout petits centre de santé bi lotissement 2000 loolu lépp sa wéyjur sëñ Moorloo moo ko def kilifa gu am solo la woon ku feesoon place la woon koo xam ni autorité yi dañ ko jox place nee naa la woon bërki démb toog naag un ancien gouverneur de Thiès muy joxe exemple ci gestion administrative ay xale yu jóge ENAM di def stage mu jox leen exemple ci Serigne Mor Lo ni leen am na benn délégué de quartier boo xam ni ginaar sax bu réeree ca quartier ba suba ga dina def une correspondance yónnee ma ko booba sax xamuli woon man mbind fa laa dëkk yow nag yaa ngi marqué l'histoire gis nga damay war faral di wax ni il faut ñu bindaat histoire ana waajur yi sancoon dëkk bi ana maam Jibril ana ana sëñ Mor Talla Lo euh, suma maam Mambay loo ana góor yàlla yooyu ana différents chefs de quartier yi fi nekkoon ñëpp ñooñu ñëpp immanquablement dinañu bindaat l'histoire te bu ñu bindaatee l'histoire Serigne Mor Lo dina ci am place bu am solo yow nag avec case de foyer de la femme bii ngay def yaa ngi complété xalaat bëgg-bëgg bi sa wéjur amoon gis nga nit ku baax da ngay fekk sa wéjur fa mu newoon ci def lu baax nga def continuation parce que wolof nee na doon sa waajur doon sa waajur moo ko gën a ah, sëñ Cheikh Ngounda du noonu wante sëñ Moustapha Lo mi itam bu ñuy bindaat l'histoire de ce quartier dinañu wax ni le lycée le plus moderne de Thiès wala du Sénégal dinañ ko implanter fii ci jardin Youssou Bey bii ngeen ñu gis déwén en avril 2024 ce sera sous son égide te loolu c'est l'œuvre du conseil de quartier conseil de quartier bi la de bu histoire bu ñuy demee ba koy bindaat c'est l'œuvre du du conseil de quartier moo tax ma ciy profité wu di def un clin d'œil aux politiques notamment suma doom bii euh, Cheikh lii ngeen di jublu rafetlu naa bloc bu classe politique bu quartier bi yëpp def autour de sa personne def table rase de vos différences politique mais l'histoire dina retenir bu ëllëgee ba ñuy bind taarix ni pour la première fois parlementaire bi jóge Médina Fall dugg assemblée nationale Cheikh gay lay doon te rafet naa ci njor parce que lecture politique bi ma gis avec échéance 31 juillet yii ñëw ndax nag man moo di nag depuis 76 ba nëgë ni mi ngi suivre la scène politique de ce pays. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di tàmbali suñu kàddu di ziar Serigne Cheikh Ngounda Fall fi teewal. njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall di ko ñaanal gudd fan ak wér nuyu suñu papa Serigne Amdi Lo xalif général waa kër sëñ maam Mbay Lo di nuyu kilifa yi fi teew yëpp mais également di beral nuyoo suñu papa Modou Diouf dinaa si ñëw mais di nuyu suñu yaay yeeg suñu tànt yi ak suñu soxna yi suñu sœur yi ñi fi teew ñëpp mais di remercier parce que occasion bi ma am lu ma ñaanoon yàlla am ko la balaa yàlla may ma ko dinaa gërëm Gueye Bamba parce que occasion bi ma offrir yéene woon naa ko yàlla jaarale ko ci loxoom kon maa ngi koy félicité ci lii mu def muy jëf jure jii mu def mais di ko gërëm ci occasion bi mu ma may tey ma wax ak sama askan yàlla dafa def ñun bi ñu juddoo ba léegi ñu ñëpp xamante ñun ñëpp a bokk bi ñu juddoo ba léegi ñu ngi dégg ci suñuy wayjur ñuy mettitlu ak ginnaawal gu ginnaawal Médina Fall ci wàllum cër dañ daan def buñ masaan jublu ci échéance yu mel ni muy élection surtout législative ñi daan ñëw di laaj baatu askan yu daaw ñu nekk ñu dëkk ci Médina Fall ñenn ñi sax daaw dëkk biir Thiès. waaye dañ daan ñëw ci seen xel mu yeewu tànn su ñun kenn def ko ci seen liste yóbbu ko ci position bu sore jàppale ko tuuti ci moyen pour moom mu am lu mu xëcc ci électorat wu Medina Fall moom mu nekk tête de liste pour bu kooku xëccee dara ci Medina Fall mu mën koo profiter pour mu mën a nekk député waaye su fekkoon kooku am na ngoru sax bu noppee dellusiwaat ci Medina Fall ni yéen bokk ngeen ci li tax ma nekk député sax ñu mën ko gërëm waaye bu paree fa lay doxee yam fa. am na sax ñu gàtt xel dañuy toogaat ba élection jib ñu ñëwee neneen solaat meneen mbubb loolu nag nekkoon lu ñu metti lool lool lool lool waaye mënuñu ko woon a wax ñu bari dañ ma daan wax naan ma sa carrière politique da dul bari looy wax il faut ngay jóg di wax man ne leen ñun yàkkamtiwuñ fi ñu jëm xëy na bu ñuy joxe ba agsi si ñun dinañ ñu jox moo tax ñu toogoon fi ñu toog rek gëm li ñu gëm ñu pour suñ bopp ndax bu doon suñ boppoo ñu ñor jéemoon nañ ñu jënd bu yàgg waaye ñun mënuñu ñu jënd parce que dafa am lu ñu fi fekk te bëgguñu ñu ñu ñëw mu agsi suñu loxo mu réer mu naan mujjee puso bi mu réer ci say loxo ñu daan waxtaan ak suñuy wayjur ñi ci ëppoon ku ñu doon waxtaanal suñu papa di Diouf mii la mu ñuy conseillé di ñu wax ñooy kan di ñu wax laajin bi nañ ko rafetal moo tax duñ ñu dégg ndax léegi boo waxee dangay ngay ñu mën laa ràññee wala nga wax bu tegginwul ñu ne bu ci desee ñu dem toog suñu roq rek ba yàlla ñëw ak ay mbiram yàlla def suñuy mag yi fi nekkoon élection locale ñëw ñoom ñu jóg ñenn ñi dañuy laaj kàddu askan wi pour jiite mairie bi ñoom ba ñu demee laaj yàlla def na jotuñu gagné élection législative yi jub si ñoom ñëpp ñu dajaloo waxtaan ni dañuy wax ak kilifa yi nga xam ne ñoo yor coalition yi fii ci dëkk bi ñu ne coalition bu fiy tabb liste te woo ci doomu Médina Fall teg ko ci position d'éligibilité maanaam fu mu mën a jàll député bul compter ci électorat wu Medina Fall bañ ko defee waxtaan ba pare man leen di li ngeen wax ni lu am solo la waaye bu ngeen da ngeen cee war a tegaat ni yéen ñi nga xam yéen ngi politique bokk ci coalition yi na ngeen dem xeex ba seen coalition yi bu ñuy tabb bu leen jéggi bu ngeen ko waxee rek ngeen suñu xel dal na. si bis boobu ñu defee loolu ci guddi gi président Macky Sall doon recevoir waa cees ma ñëw ci salle bi président Idriss Seck désigné ma pour ma wax ci turu ndawu Thiès booba xamaguma wax dinañ ma def député am comme occasion la ñu daseeg njiitu réew mi man it ma wax suñu doléance ma ne ko monsieur le président man de dama dëkk ci benn quartier bu ñuy wax Medina Fall am tawat joo xam ne dafa naqari population Medina Fall waaye man maa am occasion jàkkaaru dinaa la ko wax Medina Fall dafa am problème mu assainissement bu ko sonal lool chaque année nga gis li fa inondation yi di causé am benn réseau d'assainissement boo xam ma nga jóge fu kenn xamul jaar ci suñu dugg xolu quartier dem di verser ndox mi muy jëlee ci quartier yooyu ci benn centre d'épuration boo xam ne quartier bi ko abrite dañ koo rattaché ci Médina Fall muy Kër Seyib te ñun suñuy papa def nañ pétition dem nañ ONAS def nañ lu nu man pour am accès ci réseau boobu mënul sotti ñu bëgg a xam ndax ñu dañu cee bokk wala dañ cee boolewul ba ma ko waxee ma gis mu yëngal boppam ma xëy na ma ni kon fi ma waroon a àgg def ko wax naa ko baax na ñu ñëw ñu xëy président Idriss Seck woo ma Dakar ni ma ah man de dama waxtaan ak Macky ni ko sama responsable jeune laa njëkk a tabbu pour mu dugg ci liste député yi ma ne ko danga ma sas dinaa dem wax ak sama askan. bi ma dikkee sama grand frère yooyu defoon conférence de presse bi muy lay Diop di Modou Ndoye mi nga xam ne dañ koo tabb ci list mu ni ma Cheikh chance bi nga am pour jàll aw ko damay teg lépp ci suuf ànd ak yow jàppale la muy lu rëy ci man ma lay damay jóge Angleterre ñëw dagg samay activité ndax maa waxoon tënk naa sama bopp damay ñëw jàpp ci Birane jaar ci loolu suñu grand frère Badou Diagne noonu ba ñoom ñëpp ñu mat njagawaat moom it noonu boobaak léegi même ñi nga xam ni sax ñu ngi ci yeneen parti parti yi gën a radical sax dañ may wax ak man ci suuf ni ma sawaay ñun fii duñ fi campagne ndax yow lañu bëgg nga jàll député sas boobu dafa may teree nelaw daf may teree nelaw may ñaan nag kilifa yi fi teew ñu ñaanal ñu yaakaar gi nit ñi am ci ñun ba tey jii ñu yéene pour ñu jàll député yàlla bu mu tas. ñëpp di baalu ñëpp àq ci julli gi ñu jóge di bal àq ñëpp yal yàlla boole jégal ñuy waxtaan nag ci tey di nuyu kilifay diine yi fi toog yëpp waa kër maam Cheikh Rafal ñoo ngi leen di ziyaare di ziyaar waa kër sëñ Mbay Looy di ñaan yàlla yàgg leen sunu kanam te mbay leen ak wér ñoo ngi ñaanal nag ñëpp di nuyu sama mag ji di Alaaji Ñang ak moo di Diouf ak ñi fi teew ñëpp fàttewuma kenn nuyu monsieur le maire ak kilifa aada yëpp bàyyiwuma kenn. di wax nag ci bis bi ci suñu inauguration bi di ñëw nag ci Guèye Bamba ndax daf ñoo defal lu rëy fii ci Madina Fall ñun jigéen ñi Madina Fall ñun dañoo mus di yëngu bëgg développement Guèye Bamba doon xale bu tuuti fu ñuy toog di waxtaanee mbirim développement maanaam ñu ngi ci groupement yi toujours. géey booba fukki at ak juróom la am day toog ci suñu wet dend ak saalu sañ Morlo bii di déglu li ñuy wax bu ñu génnee dina ma ni nangam li ngeen wax de lii ci baax lii bu ngeen ko defee dina baax moom ma njëkk ni ma demal defi euh, kii dañ ko waxeeti <laughs> ne ko informatique man ma def dactylographie ba jeexal am sama diplôme nga naa ma mu ni ma dañuy dem jamono yoo xam ne dactylographie bii du demati informatique rek mooy dem ma ne ko fa ma koy jànge ji mu ne ma dangay dem bi di ma côtoyer toujours di waxtaan toujours di waxtaan ci ñun ak waxi développement ma xool xam ne xale bu am développement la ma bëgg développement la ma ni kii bés bu màggee ci mbirum développement lay liggéey moo tax bi mu demee jàngi ba ñëw mu ñëw fekk ñu ñuy ne continuer rek ci groupement yi mu ñëw ne waa yéen yéen de da ngeen a am Pastef dama leen di laaj nag yéen tey lu ngeen bëgg lan ngeen bëgg ma defal leen ko ñu ni ko ñun de leen rek moo ñu jaaxal ñu daal formation moo ñu jaaxal moom rek lañ bëgg mu ne ah mu ne waaw mu ne dinaa leen ko defal daal di ñuy fayal formation yóbbu ñu artisanal mais chambre de des métiers fayal ñu fa formation euh, di ñu fayal transport di ñu fayal repas yeeg toogee di ñu ko defal jël madame Ndong mu baax mais nga xam ne defal ñu formation bu mu maj mucc ayib diplôme yaa ngi nii ñu jàng fa formation sur la céréale local ja mu defal ñu la farine enrichie jàngal ñu ko muy farine bi nga xam ne mooy dindi xale yi nga xam ne dañoo xiiboon defal ñu euh, couscous marocain bi nga xam dañ ko daan jéggaani ci àll ba mu jàngal ñu ko ba xam ni ñuy koy defe jàngal ñu cere ji ñu koy defaree ba séché ko moom wow ba man koo paqueté jàngal ñu euh, araw bi niñ koy séché ba man koo wowal tamit ba def ko ci sachet yi mu jàngalaat ñu yeneen ak yeneen madame donc di ku baax dem ba di dama leen di wis ndax xam naa yéen jigéen ñu en passe ngeen dama leen di wisal may leen formation sur l'eau de javel daan ñu defal formation l'eau de javel muy ñu baax gi Bamba ñu koy ñaanal yàlla lii muy def yàlla bu yàlla tas yaakaaram yàlla yàlla bu yàlla tas yaakaaram te ñun tamit ñu ñu am jom la ñuy doom gi Bamba duñu la rusloo ba abadan daay mën dapet ñaan nañu maison bii nga ñu defal tey muy këru jigéen ñi di maison de la femme jàppandal bu soobee yàlla dinañ toog ba dégg ko mu doon ay entreprise yi entreprise bu soobee yàlla incha allahu rabbi ndax jigéen ñi Medina Fall ñu am jom lañ waaye ñoo ngi leen di ñaax nag suñu maison de la femme bii ñu ubbi fas yéene faa liggéey céréale locale bi ñu leen wax ni moom lañ fay def ngeen fas yéene di ko jëndi te bañ koy jéggaani ndax jënd boobu moo ñuy réussir loo moo ñuy jëme kanam bu ko waa Medina Fall gépp dee jënd bu soobee yàlla dinañ jëm kanam ba Guèye bàmba li mu bëgg mu am ko mu mën a ubbi ay entreprise di entreprise jërëjëf maa ngi remercié yow tamit la nuyu bu baax a baax di nuyu mbooloo mi képp ku fi toog rek maa ngi lay nuyu di la gërëm di ziar euh, sunu sëriñ sëñ Cheikh Gounda Fall di ko ñaanal gudd fan di ziar sama kilifa sëriñ am Moustapha Lo di ko ñaana moom tamit gudd fan ak wér ak mboolem njaboot gi yëpp. di nuyu Guèye bàmba di nuyu képp ku toog rek di autorité fii wala mbir mi tax laa jóg maa ngi lay nuyu la ziar man nag sama kàddu xëy na neexu ko waaye dinaa ko wax parce que dañ ne boo gërëmul nit doo gërëm yàlla ndax Guèye Bamba dañuy ànd c'était en 2016 loolu yàgg na bi ñuy ànd. biñ ma woowee dama ne ko man Guèye ba man politique bi ma bëgg mooy politique de développement xam naa na ñun ñaar suñuy suñu dañoo dañoo bu yam gis-gis mu ne ma loolu man ci laay dox ma yaakaar day caaxaan ñuy ànd dem nañ fi Dakar Modou Diop mi mën na ma témoigner Mayeta si mën na ma témoigner parce que loolu jamono jooj ñun ñoo ko doon dox ñu koy dox di tëgg projet bi ba projet bi sotti tey ku xam 2016 jàpp 2017 jàpp 2018 boobaak léegi ku ne xam na ne ne mënoon na fee mais ci ngorom bi loolu lépp sottee dana man ndeel a man du ma ànd ak kenn di la bàyyi parce que lii démb man a yow ñoo ko doon tëgg kon man sama niti démb bala may def kenn ñoom laay njëkkat séeréer ba pare te xale yu bees am na fi jigéen ñu bees am na fi man compétence bi ma am tey jii ñu bari am nañ ko fii mais gore di doomi gor moo waral tey mu def lii mu def mu fekk man nag mu nekk loo xamante ni sii man loolu mooy nelaw ci man te xam ne lii nelaw ci man mooy développement te moom lay yéen man nga man politique politicienne taxu maa jóg ku ne gis na ma lu ne xaw na fi nag waaye kenn gisuma ci lenn ndax man développement laa bëgg ma ci sama biir xol ma di ko gërëm nag te li ma ko wax keroog ni ko bu sëñ Mor Lo ñëwaatoon jamono tëj yow doo defaraat sa toogaay ndax li mu bëgg rek ci loolu nga ko fekk si développement mën na faal moo ko tax a jóg jigéen ñi mën na faal di suqaliku moo ko tax a jóg te yow bi nga ñëwee loo sang ci loolu nga dox kon dan lay ñaanal lii nga yéene jigéen ñi mën na faal mi maison de la femme bee jàppandal yàlla nañ koy dégg ci entreprise yu gën a mag ci Sénégal di ko dégg ci entreprise yu Voilà, très bien. Monsieur Mamadou euh, Gay Bambolo, président de l'association de la Grande Rencontre, également natif euh, de Mednefal. 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, vous avez porté le développement dans votre Aujourd'hui, vous venez de réaliser le plus grand projet qui était un rêve. Quel est le sentiment Merci beaucoup. Le sentiment, c'est un sentiment de fierté c'est un sentiment aussi de, de dans le partage, c'est un sentiment aussi de réalisation. Parce comme tu l'as si c'est un projet qu'on a initié déjà depuis quelques années déjà. Vous, vous êtes témoin de cela. On avait commencé avec le comité Action envers les enfants dans le cadre de leur maintien dans le système scolaire. Donc on a expliqué tout à comment le projet a évolué, où ça a été, à un niveau de projet d'autonomisation des femmes. Juste pour euh, mettre le, le contexte sur ce projet, donc ce qu'on va mesurer à travers ce projet, c'est grâce à ce projet, quelles sont les ressources qui ont été générées pour permettre aux femmes de mieux encadrer les enfants et de les maintenir dans le système scolaire. Donc on s'est rendu compte que ce sont les femmes qui se battent tous les jours. Ce sont les femmes qui sont très très impliquées dans l'accompagnement des enfants Et nous, nous croyons dans le cadre de notre projet que la meilleure façon de développer un pays, la meilleure façon d'élever un peuple, c'est d'éduquer ses enfants, c'est que les enfants soient des sachants et des savants. C'est dans ce cadre-là qu'on a mis ce projet pour donner plus de ressources aux femmes qui leur permettraient de couvrir mieux la scolarité des enfants et donc de maintenir les enfants dans le système scolaire. Donc dans ce cas-là, on peut dire que c'est avec grande fierté que de ce projet qui est initié et réalisé pour le bonheur des femmes de Médina Fall. Alors, quels sont les partenaires techniques et financiers qui vous ont accompagné à réaliser ce projet? a été réalisé grâce notamment à Siatel Mas Via Delmas, qui est le concessionnaire Caterpillar en Afrique de l'Ouest. Pourquoi Via Delmas a soutenu ce projet Via Delmas est une entreprise avec un impact assez large au niveau du sud-régional. Donc Via est en train de développer ce qu'on appelle les RSE. Les RSE, c'est la responsabilité sociétale et environnementale. Les entreprises se rendent compte qu'on ne peut plus se limiter à produire, vendre et partir. il faudrait que les entreprises aussi participent à la protection de l'environnement. Il faut que les entreprises prennent une responsabilité sociétale envers les populations. Et Giadelmas, dans ce cas, a réalisé pas mal de projets. Et ce projet s'inscrit, dans le cadre de la RSE. Après Giadelmas, il y a aussi un soutien et l'appui technique de la Chambre de commerce, d'industrie d'agriculture de Thiès à travers président Mamadou Diop, ont beaucoup soutenu dans la conception du projet et dans la mise en œuvre de ce projet. Donc voilà les deux entités, si l'on peut s'exprimer ainsi, qui ont participé de manière directe à ce projet-là. Également une cérémonie qui a drainé euh, du monde des acteurs politiques de développement, entre autres. Aujourd'hui, le sentiment de Guy recevoir toutes ces personnes S'il fallait encore démontrer une fois que Medina Fall est un et indivisible. Ce qu'on a vécu aujourd'hui en la preuve. Nous avons tous la même ambition de développer ce quartier. Chacun a sa méthode, chacun a sa voix, chacun a son expérience. Nous, nous avons choisi le développement local, le développement de proximité. Mes frères, choisi la voie de la politique qui sont venus témoigner aujourd'hui leur soutien à travers cet événement, moi je peux qu'être heureux, je peux qu'être rassuré dans la conscience de tout le monde de se dire que nous avons le même projet et nous avons le même objectif. Donc c'est un sentiment de fierté et de bonheur de les avoir reçus dans cette assemblée voilà président Mamadou Gueye Bambolo nga jiite mbootaay bi euh, di mbootaay la grande rencontre muy association Euh, juróomi at juróom benn juróom ñaar ba fukki at ngay yëngu ci wàllu développement tey ñu gis nga teg projet bu gën a mag euh, tey ci biir na Fall lan mooy yëg-yëg bi. yëg-yëg yëg-yëg euh, bu boo xamante ni jàpp ci yoon te war a jëm ci kanam nag mooy yëg-yëgu tamit ñi ñu ko ànde woon li ngay wax ça fait des années ñu di ko ànd ba yàlla def tey ñu egsi ci bii kon dañuy am yëg-yëgu mbégte. am mbir mi du sant ndax boo demee ba ci lu mel nii kilifa yi nekk ci dëkk bi ñëw ñoom lu teew seede liñ fi teer la def ci seen seen xalaat wax ci seen xam-xam ñun dañuy sant yàlla bu dañuy a am yaakaar ni ñun nag yàlla suñu ci def ci gunge eh, ci li nga xam ne mooy partenariat. partenariat bi may njëkk a cité mooy entreprise bu ñuy wax GAM. Jardin Mas mooy ñi nga xamante ni ñoo yor lépp lu jëm wàllu caterpillar fii ci biir Afrique soo wu jot nga xam ne ñu liggéey ci miin yi ñu ngi liggéey ci wàllu énergie ñu ngi liggéey ci lépp luy defar tali ak yu ni mel xam nga léegi entreprise yi dañu ni ñoo nekk rek di nekk ci biir dëkk bi ak réew mi di liggéey di jël suñu bénéfice dem. ndax ba ngay liggéey di def bénéfice am na loo xamante ni yaa ngi koy yàq wala ay responsabilité directe yooyu am ci environnement bi mel nii donc en plus dañuy jël responsabilité li ñuy liggéey di ko am ñu am loo xam dañ koy delloowaat ci askan bi donc ci wàllu boobu la GIADELMAS jàppale aussi association bi ci projet bi donc GIADELMAS partenaire la ci beneen partenaire bi mooy chambre de commerce et d'avenir culture bu Thiès à travers son président Mamadou Diop waxam na mu ñëw seen appui technique en termes de conseil en termes d'élaboration de projet ba ñu yegg fii ñu yegg loolu mooy ñaari jàpp nañ ci projet alors euh, tey jii gis nañu doom Médina Fall yëpp tey manko ne ñëw fekkee euh, li nga xamante ne mooy bis bi ba ci euh, sëriñ yi moom dañuy lim sëriñ Ngunda Fall sëriñ Cheikh Ngunda ak tamit sëriñ kilifa diine yëpp maanaam ci Médina Fall ak yi li ni mel lan moo ciy say kàddu. loolu day wane ni nekk ci dëkk bi yëpp muy ndaw yi ak mag yi jiiteel nañ dëkk bi ndax lu mel ni mu amee. yitte yi ñu pare mu bàyyi ko ñëw fi ak cant tamit da cay feeñaat ndax loolu mooy lii ñuy def ragaluñ koo def usulu ko kon lu baax leneen liñ ciy jàngat mooy yëpp ñëpp ñu yéene ci dëkk bi la nekk daa am nekk ci politique bi ñun ñu choisir nekk ci domaine développement social am ci ay xalaat ki pexe ba tax ñuy wut ay ay ay ay pexe yoo xam ne ci ànd ak ñii ñu àndal ba indil ko askan bi kon loolu fierté la li ma ci gën a euh, dalal sama xel mooy ñëpp ku ci ne yaa ngi ci li nga nekk keneen si la ca waree am daanu daje ci jàmm saafoonte ci jàmm defante ci jàmm ba yàlla ku ci nekk bu fa ñëwee bu nekk garanti yow la ngay liggéey def kon sentiment de fierté la ak aussi euh, assurance ci li ñuy def nii euh, barke mën na cee am. jërëjëf merci. merci beaucoup. fu ko fekk fete mu yegg fa bu mu dem jógaat kon yow boo jógee jaar ci tomb yu baax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 di ko sant te di ñaan sans borom guddal fanam wéral ko ba lépp li nga xam ni mi ngi ko yéene liggéeyal maamam sans borom kàttanal ko ba mu def lépp te na mu gën a kawe. ñu faal ñu ngi sant bu baax a baax ñu ngi sant ci yéene bi ñu ngi sant ci jàppale bi ci biir ak ci biti di sant ci taxawaay bi di sant ci njaboote gi lépp li ngay def loolu loolu yàgg na. dana ñëw teewal ko ci sama bopp ñu loolu yooyu jotaay du ma ci faral di teew waaye bii danaa ci ñëw teew ci ba ñëpp xam ni lii ngeen di def ànd naa ci te sama sama tànk mi ngi ci biir. kon Fall ñu ngi lay sant bu baax amuñu sa fay sa teewaay fii kawe na ci ñun lool yàgg na ci ñun fu sori lool wayjur yi nga doon ci ñun sëriñ yi nga doon ci ñun yaa ngi koy wane. kaaraange gi nga doon ci ñun it yaa ngi koy wane. waaw ñu lay sant bu baax a baax. di tag ci sant bi sëñ Assane mi ko mu Cheikh Fall sëñ Cheikh Fall bàyyi góor suñu maam moom it nga xam ne dañuy nekk étudiant ba tey bi dañuy nekk xale ba tey mu nekk suñu xarit nekk suñu wóllare bu ñu mës a nekk ci àdduna bi ñu ngi déggante di waxtaan. sëñ bi yow ñu ngi sant bu baax ci teewaay bi tey di la ñaanal li nga bëgg a liggéey sa maam at yi fekke ko doole ji fekk ko kàttan gi fekk ko ba lépp nga mën ko defal sa bopp barki borom Tuubaa bu ñu jógee ci loolu ñu sant sëñ Omar mi itam sëñ Omar Fall di suñu xarit moom it nga xam ne fu ñu nekk ci àdduna daañu fa fekk sëñ bi ñu ngi lay sant bu baax Fall yaram sant njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp jógee ci loolu di sant suñu baay baay Moustapha mii fi toog mu toogal fi njabootu Cheikh Babacar Góob bi lépp ñu ngi sant ci turu baay gi sant la ci turu looyeen gi sant lay ci turu dëkk bi nga xamante ni yaa ko jiite sama borom teg ko ci sa loxo ñu ngi lay sant yow it ni ko waxee ci jàppale gi kàttan gi conseil yi ñaan yeeg lépp rek ñu ngi la ciy sant bu baax weesu nanu ci quartier bi yëpp li nga fi def lépp ñu ngi koy dégg ñu ngi ci am ay information di ñaan sama borom yow it yàggal la ba li nga yéene ci dëkk bi li nga yéene ci dëkk bi sama borom kàttanal la jox la buñ ko mën defee nga yéene yëpp yegg kon ñu ngi jaare ci loolu sant njabootu Cheikh Ababacar Lo gi yëpp ñu fi toog sama bàyyi yii fi toog nga xam ni lépp lu may def ñu ma ci ñaanal di ma ci conseiller bi ma ci itam soññ ci lépp nag ci loo xam ni dafa rafet loolu maa ngi leen ciy sant bu baax di leen ci gërëm ñu ngi sant Baye Mortala sant Baye Ablaye di sant Baye Cheikh di sant bàyyi Saliou di sant Baye Modou ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax di la sant di la gërëm ci teewaay bi ak itam jàppandal gi ndax li sëñ Modou loo wax léegi sant rek moom xam na nu ci wàllu googu di ko sant moom sëñ Maxtaar di sant sëñ Modou Guèye ak sëñ Dan sëñ Maxtaar ñoom ñépp ñi di nekk loolu sunu wàllu bopp la mënuma wax lu ëpp li sëñ Modou gay wax léegi kon bu nu weesoo ci cant yooyu kàddu yu gàtt laa fi bëgg a wax rek su ko defee ñu dox sëñ Moustapha mu ñaanal ñu su ko defee ñu dox sëñ bi mu tënkal nu nu daal di jóge ci jotaay bi mën a dem xool barab bi def ci ay ñaan bu loolu weesoo may nuyu tam euh, ñi nga xam ne ni teewoon nañ fi yëpp jaar fi muy des acteurs yu nekk ci dëkk bi wala des autorités yu nekk ci dëkk bi wala boog des li koy wax des acteurs ci yeneen domaine yu nekk ci dëkk bi kenn ku ci nekk jaar nga fi manifester sa intérêt ci lii ñuy def ndax ñoom rek lañ koy defal donc maa ngi nuyu ñëpp ñi fi jaar ba dem nuyu naa leen maa ngi nuyu aussi particulièrement euh, Mamadou Diop nii Modou Modou dama bëgg ngeen tàccul ma ko ndax. actuel Mamadou Diop waaye. président chambre de commerce. ndax projet bii moom mooy président chambre de commerce projet bi da cee sonn lool lool lool lool. lépp luy appui technique maanaam da cee dugal loxo ànd teg ñi nga xamante ñooy waa association bi kon président ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm bu baax a baax bu loolu weesoo tam maa ngi sant président chambre de métiers bi nga xam ne yabal na fi Abdou Wade nii mu représenté ko fi donc Abdou ñu ngi lay ñu ngi sant monsieur Seye à travers yow li ngeen euh, seen teewaay aussi ñun day am solo ci ñun ndax lii bi ñu koy commencé foofu lañ ko commencé woon ñoom ñoo ñu mettoon à disposition ay moyens yoo xam ne ci doon doon jaar di di former soxna yii nii di ci jaar di sant madame Ndong mii toog sol lu bële yi nekk ci wetu Ndéla daanaka moom moo leen formé woon boobu moo ko nekkoon di leen formé di leen toppatoo ba ñu am seen i diplôme madame Ndong mii ñëwaat engagé wu waat pour lii ñuy def mu war leen accompagner waat ba ñu mën a jël élan ba mën a dem fi ñu jëm kon ñu ngi leen di sant yéen di leen sant bu baax di leen gërëm. di gërëm tamit sama xaritu bopp moom it muy kilifa ci dëkk bi muy amatu Bakhoum mii nga xam ni lépp ku ma gis gis nga ko waaw moom it muy nekk ci ci loolu nekk ci ndaw ñi. bi ci liggéey te loolu lépp muy doon loo xamante ni day tax euh, muy jëmale dëkk bi kanam moom it ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm. ñu ngi sant aussi ñu ngi ñu ngi sant aussi sama xarit gii fi toog nga xam ni mooy sama génération ñoom laa leen di tudde ñoom ñii ñëpp nga xam ni ñoo jàngandoo màggandoo lépp ñu defandoo ko ci quartier bi ba léegi ñëpp ku ci nekk yaa ngi ci barab. di fa yëngu ñii ci biir réew mi ñii ci bitim réew ba taxit ci biir loolu ñu créé benn association des anciens élèves de Medina Fall nga xam ni fi nekk mat nañ 200 membres membres yooyu yëpp ñu ngi fii ci réew mi ak ci bitim réew ñu ngi liggéey ci lu baree baree bari nga xam ni Mansour mii lañ wax mu jiita ko muy Mansour Gueye mi toog di doom doomu bàyyi Oustaz Alioune Gueye mi dëkkoon fii voilà Mansour mii mi ngi ci biir ñoom Mouhamed Ndoye ñu ngi ci biir soxna Ulay Ndiaye mii toog it mi ngi ci biir ñuy ànd di liggéey ci lu baree bari nga xam ñu ngi ciy waxtaan am ay projet yoo xam ne itam ñu ngi ciy nekk bëgg ci bëgg koo door balaa yàgg incha allah commencé ko ci école Madina Fall itam yaatale ko ci dëkk bi donc Mansour ñu ngi lay sant bu baax ci sa présence ak tam euh, action yi nga xam ne gaa yi ñu ngi koy def lépp ak li ñu mébét ci dëkk bi lépp te xam naa ni gars yi ñu nekk fii ci mi ak nekk ci bitim réew loolu lépp bu soobee yàlla dinañ ci yegg si incha allahu rabbi donc bu loolu bu loolu weesoo nag bu ñu santee ñëpp képp koo xamante ni tudduma la nga jéggal ma waaye waxtu wi moo ñu xaw a tënk lu ko defee ñu xam ni ñun li ñu ñor moom mooy développement dëkk bi képp moo ñu ñor ku ñu xam si loolu nga nu xamee xam nga Sénégal moom moo toll foo xamante ni fokk dëkk bu ne gox bu ne ña fa nekk jéemal seen bopp dafa nekk jéemal seen bopp def loo xamante ni dina jariñ dëkk ba xam nga développement mënuñu ci xaar gouvernement fu ñu toll développement mënuñu ci xaar ay politique fu ñu toll développement mënuñu ci xaar ay maire fu ñu toll léegi ñun ñu am kuréel goo xamante ni am na ñu nekk Sénégal am na ñu nekk bitim réew am na ñu nekk fépp ci àdduna bi ñun li ñu ñor moom mooy fu ñu dugg askan woo mën a nekk ak koo mën a doon danga nga fexe fexe ba yow nga am looy jariñ ci askan wa ci wàllu développement xam nga àdduna bi li fi nekk ñett moo fi am dañu nekk ci dëkk boo xamante ni adduna boo xamante ni li fi nekk ci li nit war a dunde doyatul li fi nekk ci war a dunde doyatul ñu gëstoo loolu ba xool ko xam ni matatul lu xam ni faw ñu dugg ci biir nit ñi liggéey ci ñoom ngir mën leen a jariñ kon li ciy topp moom mooy fexe ba dugg ci biir nit ñi ba xool lan lañ soxla ñu jëm leen koo indil ba mu jege ci ñoom ngir saa borom ñu mën a ci dund koo xam day am solo léegi nag loolu mënoo koo def te commencé woo ci nit ñi mooy ñett ñooñu maanaam li ñuy wax social li ñuy wax environnement ressources yi ak li ñuy wax nit ñi man wàll gi nga xam ne dañu ko cee féetale muy ci fii ci réew mi ak ci feneen mooy wàllu éducation man loolu laa d'accord loolu laa jël xale man loolu laa choisir ni man ci laay liggéey donc loolu moo tax association bi ñu ko créé lu commencé liggéey ci wàllu xale di def ay cours de vacances di leen jàngal di leen encadré bu ñu demee ba ci yàgg ñu ni méthode bii ñuy def baaxul bu ñu ko continuer xay na résultats yi ñuy xaar duñ ko mën a am te kon partenaires yi nga xam dañuy liggéey ak ñoom duñu sax gis ay résultats yoo xam dina tax ñu ñëw di impacté ñi nga xam ne moom la ñuy def bi loolu amee ñu def fii am na ñu ko yëg am nañu ko yëgul ñu xam ne li ëpp ci xale yi li nga xam ni moo leen di jàppale ba ñuy toog ci école yi moom mooy jigéen ñi ba ñuy nekk ci daara yi mooy jigéen ñi fu nekk dem nañ ko dugg nañ ci daara yi dugg nañ ci école yi kon ñu ngi léegi bu fekkee jigéen ñi ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy jàppale xale yi pour ñu toog ci école yi pour ñu am formation pour ndaw ñi mën a tënku ba am formation yoo xam ne ëllëg mooy tax ñu jàpp ci seen bopp jàpp ci réew mi il faut ñu jàppale jigéen ñi donc loolu moo tax ñu dëkk laaj leen ci lan mooy li nga xam ne bul leen ci jàppalee yéen bi ngeen mën a euh, continuer jàppale xale yi ngeen ni ñu da ngeen bëgg ñu mutal leen métier former leen ci lañu commencé di ci def ay pexe liggéey ci ak yéen waxtaan ci ak yéen waxtaan fii ak chambre de métiers ñu yóbbu leen fa ba li ci am lépp am fa temps bi am dafa gudd kon dañ koy tënk su ko defee loolu bi mu amee ba pare ñu commencé seetlu leen dama noonu gars yi nañ leen seetlu laaj leen ndax xool ndax liggéey boobu ñu leen jàngal loolu na loo xam ne ñu koy jëfandikoo wala ñu koo jël sànni waaye ngeen nekk jigéen nag wax dëgg yàlla jàmbaare ndax ñu ci bari ci yéen dañ leen doon jàngal sànni leen ko yéen a nga doon moon di lay ñii di jaayi marché ñii di dem feneen ba di ci ba di ci amat loolu moo tax nag ñu ni kon nan ñëw nag indi leen loo xam di ngeen ci mën a liggéey di ngeen ci mën a liggéey loo xamante ni dina tax la cay génn leen mën a góorgóorlu ci njàngu xale yi donc loolu moo tax projet bi ñu indi ko projet bi nag ay machine la yoo xam ni dañ ci dañuy def transformation céréale locale dafa am ñaari pàcc ñii nga xam ni formé woon nañ leen ba ñu nekkoon ci association bi nekk ci groupement yi ñooñu dañ ciy daal di liggéey ci saa si ñu defal leen li ñu fa war a def ñu commencé di liggéey di jaay di jaay produit boo xam ne ñu ngi tudd jàppandal ma bëgg waa mel na Fall bi yëpp xam ko ni ñii seen liggéey lañ koy produit ba ma nga tudd jàppandal ngeen dem di jëndi jàppandal kuy def laa jënd jàppandal kuy def seet nga jënd jàppandal kuy def leneen nga jënd jàppandal ba ñoom ñi nga xam ne ñu ciy liggéey ñu mën see gis leen bopp loolu moom mooy lu njëkk bi li ci topp moom mooy centre d'incubation maanaam dañuy continuer di def formation yi ñu ñuy formé ba pare dañuy ñëw di liggéey am nañu lu ñuy liggéeyal yoo xam ni ñii formateur lañu ñii dañ leen jàppale ci wàllu gestion ñii dañ leen jàppale ci wàllu financement pour besoins yi ngeen xam ni da ngeen koy am muy pour di jënd ay toog di ko teg ak tamit di organiser wutu leen di yóbbu di dem ak a ñëw yooyu yëpp tamit waxtaan nañ ci ba dañ ci am di leen accompagner moo tax bi fi ñëw keroog ak président chambre de commerce ñu indi fi ñoo xam dañ leen di expliquer liggéey bi nu muy demee léegi nag ma xamal leen ni ñun lii dañ koy def ba pare jóg dem suñu yoon nekk feneen ndax liggéey moo tax nekkulu lu fi ma bëgg lii ngeen def ci seen fulla ma bëgg lii ngeen def ci seen fayda gis nga fii nii nit eggu fi fenn amul fu fi nit egg amul pas am na fi nag projet yu bëri yoo xam ne commencé nañ ko ba ñu demee ba teg machine tànk benn yoon ci la tëj ndax ñi ci nekk amuñu engagement nee naa leen lii nii bu ñu demoon ba ñu nekkuñu ñu dajaloo ñu taal koy kenn du ci topp dara ndax boru kenn nekku ci kenn dugal ci seen xaalis état dugg ci dara dugg ci dañ koo def ndax dañ leen koo yéene dañ koo def ndax loolu lañ gëm dañ koo def ndax dañoo bëgg développement kon maa leen di ñaar ngeen xam ni lii mënut a réussir te defu leen ci seen fulla te ngeen xam ne ñii fi nekk yor ay unité ñu leen dégg ñi fi nekk yor ay unité ñu leen di dégg fépp ëppalewuñ leen dara ñëpp yegg si rek moo fi nekk kon seen produit jàppandax na ngeen fexe ba ñu dégg ko ci marché yëpp na ngeen ci def fulla fay fayda entreprise la soxna Ndeye bi loo mais sëriñ la bu ngeen ko toppee ci yooyu mën naa am liggéey bu du dem képp koo xam ne def nga naka su lu doon na ko jël tege ne indi ki nga xam ne day liggéey képp ku ci am responsabilité defu ko ñu génne ko tege ko ne am nañ fi ñoo xam dañ leen fi teg pour ñoom ñuy xool bu baax a baax ku deful naka su noonu dañ lay tegg ñeneen ñuy liggéey ñu liggéey ñu tem ndax loo xam ne dañ ko indi jox leen ko ngeen ngeen liggéey na ngeen ci war a def Pastef organisation boobu yëpp danañ ko def insha allahu rabbi projet bi yëpp expliqué nañ leen ko wax nañu yëpp ay weer yi ni ñuy waxtaan ak yéen ñoo ngi leen di ñaan ngeen góorgóorlu ci nee nañ leen encadrement bi li ci war daañu leen ko defal daañu leen topp même lu ñu sori sori kon ñu ngi ñaan ñëpp ñu ànd liggéey ci tàmbalee lii buñ ko defee ak ba liñ ciy natt ñu natt ko ba nga xam ne liñ ciy xaar ñun gis nañ ko ci saa si dañuy taxawalaat beneen projet boo xam ne moo gën a màgg ñun nii ñuy liggéeyee ci noonu la ñuy liggéeyee te yamalewu ko fii ndax am na fii ci Sénégal yeneen yoo xam ne def nañ ko fa ba daanaka mat nam réew fee ca gé fee ca ca ca beneen beneen projet bi ma foofu lay nekk def nañ ko fa te mat na réew waaye fii lu dëkk it dañuy jéem waaye bu ñu demoon ba fii ak at ñaari at ñu xam ne réussir lu itam dañuy dem feneen yi leneen waaye loolu ñoom responsabilité bi ñu jël indi ko fii ngir dimbali suñu askan la ndax fii lañ bokk. maa ngi leen di ñaan ak kilifa yi fi nekk itam ñu ñaan leen ñu encadré leen ba li ngeen bëgg ci loolu ngeen am ko donc loolu mooy li nga xamante ni dama ko bëggoon a wax wax ji moom mënul gudd ndax dañuy dem xool fee sëñ bi defal ñu ci ay ñaan loolu rek laa bëggoon ñu yeggale ci ci ay kaddu xam ne suñu yéene ci dëkk bi mooy lii. jëf. asalaamaaleykum. na mu nuyu ziar ñëpp di baalu ñëpp àq ndax amaana sax waruma fee war a mën a jël kàddu ndax fii samay kilifa rek ñoo fi nekk samay papa fi nekk suñuy sëriñ ñoo fi nekk waaye lu mënta ñàkk rek maa ngi tudd Awa Sylla adjoint au maire ànd ak Ndiolé conseillère. ànd sunu yaay ji Khady Fall di conseillère à la mairie zone ñu ñëw fii nag ci yëfi euh, Gueye Bamba Gueye Bamba loo nga xamante ni nii taxawul fi lu rëy na Fall ñun sunu teewaay bi tey daf ñoo neex ndax mënoon nañoo dem feneen monsieur le maire yónni ñu feneen pour ñu pour ñu inauguré dem ci inauguration waaye li mu doon ci sunu gox danoo ñor li ñu doon li mu doon ci sunu gox danoo ñor rawatina nag sunu doomu gox def ko di Bamba bàmbaloo mii defal ñu fi lu rafet lu rëy loo xamante ni ni mën nañ ñi daanaka mosu fee am di yóbbante rek ay nuyooyu monsieur le maire ak cantam ndax kontaan gu mu kontaan ndax loo xamante ni moom moo ko waroon a mën a def gis ku ko defal ci gox bii daf ciy kontaan surtout nag mu nekk ci jigéen ñi nga xamante ni nii bu nu baaxee ñëpp baax bu nu defaroo ñëpp defaru ñu xam ne bu ñu leen jàppalee jàppale nañ gox bi jàppale nañ zone bi jàppale nañ Sénégal donc monsieur le maire mënul lu dul di sant association bi di leen jaajafal di sant Gueye Bamba mii di leen cantam nag nee na am na commencement waaye amul fu muy yem di leen dolli rek ni leen ubbil na leen ay buntam yëpp lépp lu ñu soxla pare na pour jàppale leen pare na pour taxaw leen xam na ni sax matale nañ lépp waaye di leen dolli rek ndax ci lépp lu ñu bëgg mu taxaw ci bu soobee yàlla di wax ni nag kontaan na bu baax a baax a baax a baax di wax ni lii yàlla na fi nekk ba am ay yeneen i yeneen i yeneen yeneen i maison euh, des femmes loolu la ñuy ñaan ndax ñun lu suqali Médina Fall d'abord ci la ñuy dox lu suqali zone nord lu suqali Sénégal ndax fii lañ juddoo fii lañ yaroo donc lépp lu koy jëmmal lu koy màggal rek dañ ciy jox merci beaucoup kontaan nañ torop asalaamaaleykum wa fan sëriñ bi diin ko xam ne ne ab jotam bariwul ab génnam tamit bariwul barab yi nga xam ne tamit nag fi teew barab yu néew lay doon kon jotaay bu teewee fii ci mbokkum jullit yi ci mbokk taalibe yi loolee ay ay ay fir yu bare bare bare bari la waaye koy sant bu baax tey gërëm bu baax ndaa suñ bay bëggee gi ci kàddoon jëmale ko ci mbooloo mi yëpp rek ñu ànd maas a jëriñ sëñ bi nee na nuyoo muy nuyoo nag ñu ngi ciy jiital doomam di boppam di toog samay doom yi di toog di samay xarit te sëñ Assane Fall nii mu suñ Cheikh Fall bàyyi góor bi bu ko xam-xam ko ak bi ñu ko sëñ bi jàppee ak mu ko jàppee sëñ bi ñëw fekk ko fi bi ne nuyoo yooyu mi ci ciy jiite sëñ Assane bi ak rakkam bi di sëñ Omar ñoom ñëpp sëñ baa ngi leen nuyu njabootu boppam ñu leen nuyu bu baax di nuyu bu baax tamit sëñ Amdi Lo mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Mame Boye Lo te ñëw mu ñëw fii gis ka am mboolem rakkam yëpp rek sëñ baa ngi lay nuyu kenn ku nekk ci ñëw ci tur ak santam di ci teg sëñ Amdi Moussa Lo ñi nga xam ni mooy jëwriñu kër sëñ Ndeyloo tey teg tam bi jëwriñu kër Cheikh Ibrahima Fall ndax sëñ Maam Mbayloo moo fi doonoon jëwriñu Cheikh Ibrahima Fall moom mii itam moom mii di sëñ Amdi Lo moom la sëñ Amdi Modou Mbenn Fall xalifa Cheikh Ibrahima Fall teg mu di ab jëwriñ sëriñ Seex jëm itam joxoon ko kàtte bi noonu ko sëñ am sëñ Moodu Amit da joxe woon ab magam li si des sëriñ bi mi ngi nuyu jigéen ñi lislaam sax dafa def bala nga nuyu góor na nga nuyu jigéen yeneen diine itam def ko ndax jigéen sunu boroom moo ko teral soxna yi sëñ bi ne mi ngi leen di nuyu bu baax sëñ Modou Guèye Bamba ñoo ngi lay nuyu yaag say mag ak say rak di am mbégte bu baax ci jëf ji nga jëf ndax keroog ba nga ñëwee wax ma ko ni dangay def social wax ma ni nga ko bëggee dama la daal di xamal ni la na ko siiwal ndax jëf ju baax deefu ko ndamoom waaye dees mu ko kañ kon loolu ma la waxoon danga def ko defal ko ñu baax ñépp moo waral sama teewaay fii sëriñ bi nee na leneen taxul ma teew ci may ñaan sunu boroom ci am mbaaxam mu nangu liggéey bi te noonu ko fas yéene yaatale suñu boroom jàppale la ba nga defe ko ni nga ko bëggee ndax kat doomu aadama sunu boroom moo ko njëkk a teral boroom dafa wax ni wala xatukaam naa bani aadama wa amalnaahum fi lbarri walbahri wa razaqnaahum min at-tayyibaati kon loolee sunu boroom moo ko njëkke moo njëkk a teral doomu aadama moo njëkk a dimbali doomu aadama kon ñun ñi nga xamante ni ñoo di ay jaamam te dafa wax ni kenn ku nekk ci yéen mënumaa defal lu may jariñ mënumaa defal lu may wàññi kon ci tànneefam yi lañ ko mën a liggéeyal tànneefam tànneefam yi lañ ko mën a liggéeyal mooy di leen dimbali ba ñu man di tedd teraanga ko suñu borom teral loolee ku koy def yaa ngi liggéey yàlla te yàlla ku koy liggéeyal doo ko réccu moo leen añal tey ko leen añal la ëllëg sëñ bi nee na li nga wax dégg naa ko su ma fi déggoon leneen dina ma jaaxal lool ndax dangaa wax ni dërëmu état demu ci waruñoo xaar état ci dara e, ndax état yàlla ma leen may moo ni may te yàlla jeexulul kon lu mu doon rek nañ koy sàkku ci sunu borom kii jiite état tey ba muy wut réew mi sonn na fu nekk dugg na fa ànd ak ay coono ba yàlla jox ko réew mi moom ñoomu àndaloon bu toogoon rek bàyyi ko rek du jot réew mi yàlla nag maye na ba noppi maye gi nag ñoo xam nañ koy jële jëlin wi nag moo wuute ñii dañuy jële nii ñii jële naa am na ci jëlin woo xam ne nag du mën a barkeel te duñ ci am ngërëm fitnaal doomu aadama yi wax naa ko léegi na dafa bëgg doomu aadama fonk doomu aadama tànnee yi tànn leen ci bàyyi ma tànn leen ci malaayika ci doomu aadama rek la leen tànn kon doomu aadama sunu borom bu fonk teral ko kon boo fonkee doomu aadama di teral doomu aadama dana leer ni sunu borom dina la teral tey dana teral ëllëg ndax dañoo wax ni jinne dafa am doole bay jàpp doomu aadama su ko teqale akum xelam waaye su ko teqale akum xelam doomu aadama moo koy delloosi kenn déggagul diw kenn déggagul jinne sàngam borom doomu aadama da dégg rek diw borom jinne yi doomu aadama mooy jàpp jinne di ko tàggat di ko yónni muy dem di ñëw di ko liggéey loolu doomu aadama sunu ab sunu borom da kaa fonk lii nga wax nii rek la mën a demee Madina Fall gi ñu ko defee seen maam moom la Cheikh Ibrahima Fall jële woon ko fii di ko wërloo ba fii ba mu gis ko ba mu ñëwee wax ko ko Cheikh Ibrahima Fall dand su fii damay wax ne sëñ Babacar wër ga mu wërul mat na ba indi Cheikh Ibrahima Fall cërëm feeñ na ci ndax tey loo yéen daa mel ni daa mel ne ab quartier ci biir Médina Fall taxi boo jël boo ne ko Médina Fall danaa la fan nga jëm ci mel na faat boo jëmee looyeen mel ko looyeen boo jëmee ca penc ma penc ma ngay wax waaye penc ma la ngay wax la ko kon la ko may suñ Babacar ko te jëfe ko bu baax fonk leen ko te jëfe ko yéen a ngi ci nag nii nga def itam na ko état seen bopp lañ fi nekkal wax naa ko ala kii war bi wax naa ko jullikaay bi wax ko feneen bu ñu xaar état ci dara ab réew boo ci nekkee dangaa war a fexe ba bokk suñuy doxal réew ma ab dëkk boo ci nekkee boo ci tabaxee ab néeg nga def ko kër bokk nga day suqale kàcce ba boo sukkalee quartier ba mais sukkale réew ma ciment ba nga fa def bâtiment bi dafa am ay taxes yoo xam ne da caa war taxes yooyu nag loolu ngay jënd da ciy génn ñu def ko ci réew mi waaye boo nee yàcc rek jéemoo dara doo bokk ci sukkale réew mi war nañ bokk ci bu baax ñu sukkali réew mi lii nga wax nag su ma déggoon leneen ci li nga wax <laughs> damay waxande ndax man bu may jóg waaw ci lu leer laay jóg ñu fi ñëwoon bërki dem wax naa leen ko li ma soxlaal état ay këyit la rek soxlaal ma leen leneen Dalawa. Isa na mo. Namadugo niyo si Bigo eh. Namadugo niyo si Bigo. Ay ito yung dahil mo. Ito. Maanam. Nanlan baya lan yor. Li nga xam ne ñoom lañ loolu lañ seq ñoom ñu koy def kenn ku ci nekk nag am nga cër ci réew mi cër boobee nag te yore ko soo demee ba soxla ko laaj leen ko li ma gis nag naan politique la politique l'islam moo ko jëkkee pour dem Caritas dañuy politique boo demee ci àll bi di tabax ay case de santé di bënd ay forage di ko jegele nit ñi amul kii nii la waru cee laala kon ku yàlla dogal nga doon nitu lislaam am dara ci réew mi war nga kaa feeñal ci réew mi waaye ni damay liggéey mi ngay saasu ne ngay teg nit ñi fitna rayante bi saayante bi lakki kër te doo leen ko defal mën na maa waat ni yow mal xiyaam boo dina la duma ak doon nag doomu aadama yàlla da ko teral seen bopp lañ si nekkal gisu ku fi def lii nga def Madina Fall kan moo fi def lii yow waa Fawade ñoom def ci école bi gisuma kenn te ay borom milliards te def ñu fi kon buñ ñu nax su ma déggee ñu ngi lim ay milliards damay si milliards yu bari te defoo ci lenn dee bàyyi ko sa doom doonu ko borom milliards yi laa leen laaj kan ngeen dégg mu def ko dara ñu mel nii ñu defal jigéen ay juróomi junni ay fukki junni loolu boo ci dépassé ñaari fan ñetti fan mu jeex bu ko defee nag ngeen jóg di rayante dànk leen sëñ bi ne dànk leen naa ko wax lii nag ku leen ko defal ànd leen ak moom ànd leen ak moom te bàyyi yenn yi ñi toppoon sëñ Touba ñoo ko daan def wut ay dëkk santal ba nit ña ñuy liggéey di tedd di jaamu yàlla di am lu ñu def ci yoon bi waaye ñoom def nañ dara du kii du kaa kon bañ leen Madina Fall Madina Fall liñ ci wax Madina Fall lañu wax bu ne Madina Fall nag Cheikh Ibra Fall moo tax de Cheikh Ibra moomee nag lu waaye def màddina moom nga ko defal tarixa bu nekk mi ngi fi chrétien mi ngi fi musulman mi ngi fi murita nga fi tiijaan nga fi xaadira nga fi laayeen nga fi waaye Madinatu Fall la ñu wax Cheikh Ibrahima Fall lu waral ñu wax ko Cheikh Ibrahima Fall kon ku fi def dara yaa ngi liggéey Cheikh la te Cheikh la ku ko liggéeyal doo ko réccu am na am na pay ñii nga def njabootu Cheikh la ñoom ñëpp la waral sëñ Mansour mbaax ma yàlla na suñu boom ñëpp ngëneelam dafa am koo xamante ni daa am aw dikk ak taalibeem ci wàllu suuf kookee dama wax ko sëñ Mansour ci ak dëggoom mu ni ko Madina Fall suufu Cheikh Ibrahima Fall la demal ca waa kër Cheikh Ibrahima Fall ñëw wax ma ko ma ñëw wax sëñ moom sëñ moom li jënd loolee kon Cheikh Ibrahima moom moom Madina jërë jëf léegi jigéen ñi sëñ bi ne lii mu wax nit ki suñ ko dimbalee du ne yàcc ku ne yàcc neex sa dimbale dégg naa lu mu wax fexe ba nu leen dimbalee ngeen dimbalee ko ñeneen ay nit nag bu ñu bokkee mbir kenn ku nekk day yaakaar mbir mu doxee moom la doxal su doxul doxul kenn ku ci nekk lañu seq mu gën caa yéene moroomam teraanga su ko defee moom moom mais teraanga da koy jàpp ni bi dañ daan wax ni li ngeen di wut man gaa man ngeen gaa mayante seen biir nuñ koy mayente mu ni kenn ku ci nekk su gënee yéene moroomam ngërëmal yàlla ci boppam moom moomee ngërëmal yàlla da koy jàppale magi taalibe yi ca jamono yi njëkk ya suñu musaa toog bu si kenn waxee moromam li ko naqari lu mel ne aw saaga bu ko sànjaar te sa des moo naan bërëb ndaa mu poosam ñu ko diw mii lii mun a wax bu la naqaree jaay nga ko kenn yoru ci dara boroomam gën ko kaa soxla muy mu yëkkati koo jox ko ngir yàlla kon yéen ñii li ngeen séq parce que am doon benn ci ki ko jox siggil ki ko jox am na ñu ko fi jiitu ëppale ko te defuñu fi tus kon moom ñi leen ko defal siggil leen ko siggi gi nag mooy fexe rek mu jëm kaw mu yëkkati ko rek nu nu ko defee fii defee ko feneen ay boobu milliards yi nga def ni fi dara jërë ngeen jëf maanaam bëgg kenn ku nekk ka nga tànn nga def ko muy sa candidat ànd la moom ci àndin wu rafet su ko defee dan nga baax wooteel ba xuloo bi xeex bi ak yàkkante lu bon jël ko ci yàlla tànn na day toog ba noppi te kenn mënta toog